daanaka ñox si ngom bu ñuy yéeyam daanaka ñox si ngom bu ñuy tey mënoo yor parti nga ne say nawle nga fi dajale liggéey ngeen séq wax ma benn nit laa wax buy exister APR bu ne la man xamoon naa ne Modou maam Diop day falu amul moom ak jabaram ak magi jabaram muy Mansour Faye Macky Sall ñoom seen famille ñoo toog def lu leen neex ci suñu institution Sénégal Mbaye jaay du ko wax parce que dafa sarxe boppam Seydou Guèye du ko wax dégg nga Mor Ngom du ko wax ñoom ñëpp mel na Moustapha Cissé Lo moo fi daan taxaw ne man maa bañ est-ce que xam nga ne dana am ministre yoo xam ne fii ñemewuñoo woo Macky Sall bu ñu ko gisee conseil des ministres la ab député moom mën naa toog at do gis Macky Sall amuñu biro politique amuñu cellule de communication amuñu dara Macky Sall buur la ci APR di def lu ko neex te kenn du sëqat Mimi Touré nag ginnaaroog Macky da koo nenut boo bëggee dégg dëgg loolu dong mooy problème bi souvent bu Macky bëggee def yenn affaire yi da ko naan arrête dégg nga te boo xoolee moom doo nga mën a nekk ak moom Mimi Touré li mu mën a am ci Macky Sall Seydou Gueye du ko am mbay Ndiaye du ko am kenn du ko am parce que Mimi bu day fëpp ñee nag moom daanaka ñox si ngom bu ñuy yooyee yam dafa nekkul yambar rek parce que lii mu def nii da ngay xam ne jabaram moo ko ko defloo ak ak soor fay parce que Mame Diop xaritu Mansour dong la voilà Mimi nag su ko neexee parti la yor bu ñu fi dogalee lu ko neexul ci biir parti bi la bokk lu parti jàmbur parti bi moom da cee bokk di ci di ci def énergie am di ci def xam-xamam di génn di défendre parti bi su gisee lu mu xamul am na plein droit taxaw ne lii man ànduma ci. voilà te benn benn nit boobu dong nga ne ngay gis APR koy taxaw naan Macky Sall ànduma ci de fexe na ba nekk dictature ci seen kaw dictature boobu nag la bëgg a installé ci kaw sénégalais yi te sénégalais yi duñ ko nangu ko nangu ñu mel ne man duñ ko nangu.